ayuha al ixwatu alkiram aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi jiital sant suñu boroom tabaraka wa taala di sàkku ci moom dimmal di ñaan itam mu jéggal nu te musal nu suñ ayu bopp ak suñ ñaawtee fi jëf di ñaan mu dolli xéewal ak jàmm ci jaamam di ndawam muhammad sallallahu alayhi wa alihi gannaaw loolu maa ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci weer bu mag wi ñu nekk di shahru ramadan di ñaan itam suñu boroom tabaraka wa taala mu defal nu tawfiq ba ñu mën a rafetal sunu koor rafetal sunuy taxawaay rafetal mbooleem jëf yu baax yoo xam ne des na ko sàkkoo yiw ci biir koor suñ ko defee suñ boroom nangul na ko wi ñu war a bokk fàttalente li ngeen ko déggee mooy usratu wa muskilaatuha asbaabun wa loolu maanaam njaboot ak li ci am ci ay gàllankoor ay jafe-jafe lan moo koy sabab ak itam lan moo war a nekk ay saafaram njaboot muy usra dafa nekk tëralin woo xam ne suñu borom tabaraka wa <clears throat> da ko def mu nekk fitra mu nekk baax ci mboolem mbindeef yi ba ci bay may ak njanaaw yi sax dañuy nekk famille dañuy nekk njaboot ca na nga xam ne noonu la suñu boroom tabaraka wa waaja la ci ñoom loolu moo tax ngay gis bu jigéen bi ci mala bi walla ci njanaaw li muy tënk boppam ci toppatoo doomam juy doog juddu di ko garde di ko wutal lu muy dunde ca jumtukaay ya nga xam ne moom la ko suñu borom tabaraka wa taala jàpp ndalal waajal ko ci moom ndax yàlla suñu borom tabaraka wa taala lu mu bind rek waajal na ci moom nu mu war a dunde moom ci boppam ak lu mu war a dunde moog doom ya nga xam ne suñu boroom dana ko jaarale ci moom moom la suñu boroom di wax ne rabbuna alladi aata kulla sheyin xalqahu thumma hada suñ boroom lenn lu nekk na mu mel moo ko binde noona aata kulla sheyin xalqa summa hada mu daal koy gindi nag teg ko ci yoon woo xam ne ca lay doxale mbiram loolu doomu aadama rek jagoowu ko waaye mbindeef yépp suñu boroom tabaraka wa taala xamal na leen noo xam ne noona la seen dund war a doxe moo tax ngay gis bayima yooyu di mala yooyu walla njanaaw yi ñuy defar ay barab yoo xam ne dañ ciy jublu kaaraangey seeni doom nga mën koo tuddee ay kër bu dee ca picc yi ñu ngay defar ay tàgg yoo xam ne bu góor baag bu jigéen ba ñooy jàppalante ci amal ko danañ am diir bu yàgg di dajale bant yaag ñax maag ya ca war a aju ak itam ban place lañu war a placer tàgg moomu du fu ñu jot rek def ko fa waaye ci kaw garab walla ci ab tabax wala daal barab boo xam ne ci ni leen suñu boroom xamale jàpp nañ ne barab bu wóor la su fekkee mala bu aajo woo pax la mu gas pax bu dee bu aajo woo am lëm muy xar-xar buy nekk ci garab wala di nekk ci doj su ko defee ñu wut lëm mooma defar ko noo xam ne seeni doom danañ ca mën a am kóolute mën a ko garde mën a taxaw itam ci di ko wutal lu mu dunde bu fekkente ne nag mala yi ak njanaaw yi ak xeeti bindeef yooyu yépp ñooy taxawe noonu ci taxawu kër ak njaboot kon loolu gën naa feddaliku ci doomu aadama mi nga xam ne suñu boroom tabaraka wa taala jagleel na ko ci xel ak man-man loo xam ne jagleelu ko lu bari ci yeneen bindeef yi ci des moom la boroom bi daan wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqna tafdila walqad karamna bani aadam wa xamalnaahum fi lbar walbahr wa razaqnaahum min altayibat wa faddalnaahum ala kathir néewul ñoo gën ñépp waaye daal gënal na leen ci ñu bari ala kathirin min man xalaqna tafdila jox naa leen ngëneel loo xam ne joxuma ko lu baree baree bari ci li ma bind kon doomu aadama moo gën a aajowoo taxawal loolu nga xam ne moom la ñu tuddee njaboot dañu koy tuddee kër wala famille rawatina ndawuk doomu aadama mu gën a yàgg ndawuk beneen mala bu mu mën a doon beneen mala bu mën a doon amee ay ñaari weer ñetti weer rek léeg-léeg du ca yàgg sax daal di xaw a mën a dem ak boppam doomu aadama nag moom dana def lu mat ñaari at ci nàmp te itam bu ca jógee itam du tee day laaj ñu koy taxaw ab diir bu yàgg ngir li nar a tegu ci kawam ci taxawee kaw suuf si ci dundal ko ci yéwénal ko ba doomu aadama mën a dund ci kaw suuf loolu lépp suñu borom tabaraka wa taala mi ngi ko gàll ci loosu doomu aadama moo tax waajtaayam ci bu dee ndaw di jël waxtu woo xam ne wu yaatu la doomu aadama ab dundam du mën a jub lu dul ne dafa nekk ci biir famille nekk ci biir njaboot goo xam ne dañuy xam kan mooy baay kan mooy yaay xam jege ñaale yi kii doom la kii mbokk la kii bàjjan la kii maam la ngir dimbalante ak jàppalante mën a am ci seen biir kenn ku nekk taxawe la mu war a taxawe su ko defee doomu aadama boobu waajtaay wi ñu koy waajal mën a mat ba lim war a taxawe bu ëllëgee mu mën koo taxawe loolu moo tax sàmm asl mu xifsul nasab bokk ci ab daruriyaat muy mbir yi mënta ñàkk ngir dund mën a am taw suuf bokk na ca sàmm aw askan loolu sharia yi fi dikk yépp saxal nañ ko même xeet yépp itam ci seen fitra ci ni leen yàlla bindee danañu yëg ne aajowoo nañu loolu muy sàmm aw askan sàmm njaboot donte nag dana am ñoo xam ne danañu jàdd ba génn régal boobu jàpp ne njaboot moom ajowul taxaw kenn ku nekk day dem ak boppam waaye loola lu néew la te tam kenn du ca xiyaas kenn du ca natt bu fekkente ne tëlër lii njaboot doom aadama yépp a ko aajowoo nag ci lislaam lañ ko gën a wooti ndax lislaam moom dafa ñëw di saxal mboolem loo xam ne suñu borom tabaraka wa bindoon na ci doomu aadama muy natiiram nga xam ne mënu koo ñàkk lislaam day ñëw di garder loolu di saxal loolu tàmbale ko ci aqida borom bi tabaraka wa doomu aadama yépp da leen bind ci fitra ñu war a am pas-pas bu wér boo xam ne xam ne yàlla rek ay seen boroom ñu war koo jaamu buñ ko booleeg dara moom la ne fitratallahi allati fatara annaasa alayha diine bu ñëwee loolu nga xam ne moo amoon rek lay maintenir moom lay saxal pour mu continuer comme mbindeef yi itam suñu boroom da leen bind ci ñu war a dimbalante ci seen biir nekk njaboot lislaam bi mu ñëwee itam loolu la gën a saxal tëral ci itam ay atte te jullit waru cee sàggan ci xam lu ko waaye itam nag jëfe ko su deseet ci fiqul ami ay bunt yu bare baree bari ci fiq mais aju ci luy téye njaboot tàmbalee ko ci axkaamu nikaax demee ci téere fiqi da ngay ci ne baabu nikaax buntub sëy muy bunt yi gën a gudd sax gën a jafe sax ci lu fiq ñu di ci dugalaale pase di ci dugalaale raja muy delloo siwaat bu ñu pasee te idda ja ñu bëgg a delloo siwaat nuñ koy defe di ca jàngale idda ci jàngale xadaana muy nu ñu yore xale bi suñ demoon ba tàggoo am kan moo war a yore doom yi di ca jàngale radaa nàmpal ci ca jàngale wilaaya muy kilifteef kilifteefuk njaboot gi ci jàngale wàllu nafaxa muy wàllu dépense bi ak dëkkuwaay yàgg la ci aju yooyu yëpp ay bunt la yoo xam ne dañ koy jàng ci fiq jullit bi da ko war a xamloo ni ñuy xamloo ibaadaat yi muy julleeg laab ak ñi ci aju noonu lañ war a di jàngee itam nag fiqu al muamalaat bii nga xam ne surtout dafa aju ci njaboot kon dañuy wax ne wujudul usra daruratun sharciya wa xaajatun fitriya amul njaboot famille mënta ñàkk ci sharia waaye mënta ñàkkit ci ni suñu borom tabaraka wa taala binde doomu aadama ci fitraam baax bi mu ko bindee mënta ñàkk biir njaboot goo xam ne ñoo koy woof ñoo koy ëmb loolu tax ci alquranul karim da gis ay saar yu bari yoo xam ne bari na luñ ca tudd atte yoo xam ne dafa jëm ci wàllu njaboot ak teggin ya nga xam ne ca lañ ko war a jaarale mën ngi ci tudd suratul baqara tudd na ci lu bari suratul nisa suratul nuur suratul ahzab suratul mujaadala suratul talaaq saar yooyu yépp da ngay gis ne ñi ngi wax lu baree baree baree bari ci wàllu njaboot nu mu war a doxe ak nuñ ko war a sàmme ak la ca nekk ci ay atte yoo xam ne suñu borom tabaraka wa taala da ko gàll jaam ñi ñu war koo xam euh, njaboot nag ci lislaam muy al usratul muslima laltaay bi muy tegee muy fondation bi muy tege dafay nekk njaboot goo xam ne ña nekk ca biir njaboot ga yépp composé ko muy afraadul usra kenn ku ci nekk dañ laa war a yar yarub lislaam demee la tabax bu ñuy tabax bala ñoo tabax dañuy def ay birig kon biir famille bi itam ñi koy composé war naa fekk ñu defar leen kenn par kenn defar yiinu lislaam ba nga xam ne yarub lislaam boobu dana meññ ci ñoom ci seen biir ak itam pare pour dimbalante ak yërëmante waaye lépp nag ñu teg ko ci tëraliinu suñu borom tabaraka wa taala loolu nag du mën a am lu dul ñaar ñi nga xam ne ci la njaboot di sosoo te mooy ñaari way dencante yi ñu nekk ñoo xam ne ñu baax lañu ñoo xam ne kenn ku ci nekk yar nañ ko ci jàngal ko xam-xam bu am njariñ waaye tàggat ko ci jëfe jëf ju baax joo xam ne moo meññee ci xam-xam boobu ñu jàng al ilmu naafi wal amalu saalix ñaari way dencante yi kenn ku ci nekk war naa fekk ne jaare la nañ la foofu xamal nañ la xam-xam bu am njariñ te mooy alkitaab wa sunna waaye itam nag yar nañ la ci jëfe ko ndax xam-xam bi boo ko jàngee te yaruñ la ci jëfe ko itam tàggatuñ la ci itam doo ko jafe loolu tax li njëkk war ci su fekkee dencante mi ngi bëgg a am ku góor ki gannaaw moom nit ku baax la yar nañ ko ci xam-xam bu am njariñ boobu ak tàggat ko ci jëf ji nga xam ne mooy jëf ju baax na fexe ba gëstu almaratu saaliha zaati diine jigéen ju baax joo xam ne am na diine dëgg dëgg dëgg waxuñu ab diiney aada waaye diine dëgg la am ci wér ji nga xam ne delluwaayam du nit ñi wala ci samay way jur wala waaye delluwaayu diine ja mooy alquran mooy sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñi nga xam ne ñooy kilifa ku jigéen ci itam war nañ koo tànnal moom itam góor goo xam ne gu baax la yar nañ ko moom itam ci xam-xam bu am njariñ tàggat ko ci jëfe ko ba ñoom ñaar suñu àndee kenn ku nekk mën a amuk dal ci sa moroom yëg ne li nga manqué woon kii mi ngi la koy mottali su ko defee yéen ñaar ngeen mën a taxawal fobi boo xam ne su ca njaboot juddoo mën naa nekk fobi boo xam ne bu lislaam lay doon moom la borom bi wax ne wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha bokk na ci kéemtaani suñu borom tabaraka wa bind gi mu bind ay góor ak i jigéen ñuy dencante te min anfusikum ñu bokk wenn xeet ñoom ñépp nit lañ mu ne li tas taskunu ilayha ngir ngeen mën a amuk dal ci moom soxna soosu bu dee soxna siit mu amuk dal am xel mu dal am kóolute ci góor gi nga xam ne moom la nekkal wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma mu ne nag doxale na seen diggante cofeel ak yërmande looloo war a dox ci diggante bi waaye nag loolu day fekk ñu tàggat ci nit ki ci cofeel goo xam ne du doon cofeel gu mu teg ci bànnee xam waaye cofeel gu mu teg la ci diine teg ko ci sakku ngërëmul borom bi tabaraka wa taala yërmande ji mu am itam moom itam yërmande la joo xam ne diine mooy li ko ci poussé mu ne inna fi dalika la ayat li qawmin yatafakkaruun kon njaboot ci lislaam nekk na loo xam ne mënula ñàkk waaye itam fondation ba mooy ñaari way dencante yi tànnante ba nañ ko teg ci diine kenn ku ci nekk ñu yar ko ci diine ba mu gis kam war a àndal moom itam natt ko ci diine ji ñu ko yar xemmem ngir ànd ak moom ngir gën a mën dund li nga xam ne mooy diineem am na nag li wax ci ay muskilaat muy ay gàllankoor ay jafe-jafe yuy am ci biir njaboot gi bari na lool te wuute am na ci yoo xam ne diggante ñaari way dencante yi lay doon muskilaatun bayna zawjayn loolu la koy waral mooy jàddu kenn ci ñoom ñaar nuzuuzu ahadi zawjayni ñaari jàdd yooyu yépp alquran tudd na ko tudd na jàddug jigéen ji tudd na jàddug góor ji wallaati taqaafuuna nuzuzahunna jigéen ñi nga xam ne yéen a ngi tiit ñu jàdd wàcc yoon wi ñu waroon a jaar ci ànd bi ànd bi dafa am régal dafa am yoon woo xam ne ci la war a jaar bu dee ci ku góor ga mu ne wa in imraatun xaafat min bahliha nusuusan aw iraadan fala junaha alayhima an yusliha baynahuma sulha ñaar yépp mi ngi nekk ci sóoratu nisa ñaari aay yépp ci sóoratu nisa la ne aaya bu njëkk bi aaya fanweer la ak ñeent aaya bu ñaareel bi wax jàddu góor gi téeméer la ak ñaar fukk ak juróom-ñett ci saar bi kon moo lay xamal ne kon jafe-jafe yi su amee rek nusuus moo am nusuus mooy sori yoon wàcc yoon wàcc goo xam ne sax da koo sori lool loolu mooy nusuus moom lay wax naan wa ida qiila nsusu fan susu ci suratul mujaadala buñ la laa toppal sax toppal kon koo xam ne dafa wàcc yoon wi ba sori yoon wi nga xam ne ci la waroon a jaar moo xam góor gi moo ko def wala jigéen ji moo ko def bu boobaa muskila jafe-jafe day daal di am donte benn bu ci nekk nag tudd na fa ñuy jaar bu dee jigéen ji nee na faizuhunna na ngeen leen waar xam nga waar nag fàttali la day fekk diine nga fa woon suñ ko waaree mu waaru waaye ki xamul dara ci diine xamul wàccuwaay bi diine am xamul poids bi mu am kooku sooy wax ay aaya wala ngay waxe xadis moog yeneen wax ñooyam ci moom kon faisoohunna la wax newul fa na newul jàngal leen mais waar leen la wax waar mooy fàttali fekk na xamoon na xëy na dafa xawoon a fàtte buñ ko waaree rek fàttali ko rek day daal di waaru fàttalikuwaat loola moo cay jiitu dog caateeg nag wax juróohunna fil madaaji wadribohunna ba mbir jeex su fekkee waaru ga jëriñut bu dee ku góor ka mu ne nañu yéwénoo falaa junaha alayhima an yusliha baynahuma sulhan wa sulhu xayr nañu fexe nu ñu defare seen diggante ci ak juboo doonte day laaj kenn ku nekk am loo bàyyi ci say àq ngir bëgg ànd bi rafet bu ko jaree ngir ànd bi mën a continuer nañ ko def te mu ne wa in tuxsinu wa tattaqu fa inna allaha kaana bima taamaluuna xabira jàdd yoon googu nag bokk na ci li koy waral ay sababam kenn ci ñaari way dencante yi liy waral muy jàdd bokk na ca suul ixtiyaar muy rafetaluñu woon nañu tànnante nañu tànnante woon ñoom ñaar ba ñuy ànd rafetaluñ ko woon teguñ ko woon fi ko lislaam teg moo tax ba ñu duggee ba ci biir ay rëq-rëq tàmbalee feeñ bokk na ca la koy waral itam ñàkk a xam diisaayu sëy masuliyatu siwaaj xam ne responsabilité la ci kenn ku nekk ci ñoom ñaar waaye du kenn ku nekk dangay ngay nguuru ci sa kaw moroom waaye aw sas la woo xam ne da ko war a bay sa diggante digganteeg sa moroom moom bokk na ca sabab yi itam ak tarbiyatu sayyi'a yar bu rafetut ci kenn ci ñoom ñaar wala ñoom ñaar ñëpp ñoo xam ne ànd nañ waaye am na ci koo xam ne yaruñu ko yar bu rafet yaruñu ko yarub lislaam boo xam ne tegu na ci xam-xam ak jëfe bokk na ci sabab yooyu itam nag dugg gu ca aqaarib ya di dugg tadaxulul asxaar way juri ku góor ki wala way juri ku jigéen ki di dugge ca sëy ba noo xam ne waruñ caa duggee noonu te kenn ku ci nekk danga jege ka nga jur bu dee ku góor ki ay waajuram jege nañ ko lool ba am na nu ñuy taxawee ca sëy ba day mujj feeñ ci moom ci doxalinam moom itam ku jigéen kay itam moom itam am na nuy waajuram di taxawee moom itam ci ab sëyam day mujj feeñ digganteem ak ki mu seqal sëy bi kon loolu sabab la ci yi nga xam ne dana feeñal jàdd yoon googu muy nusus googu ci jafe-jafe yi am diggante ñaari way dencante yi am na jafe-jafe yoo xam ne itam diggante jigéen ñi ci seen bopp muy ay wujj ci lay am ñoom ñooy ami jafe-jafe yoo xam ne itam lekk léeg du yam ci ñoom dana dem ba ëmbaale ki nga xam ne mooy seen boroom kër seen jëkkër waaye ci ñoom lay sababoo bokk na ca la koy sabab ñàkk a maandu góor ñi ci boole ay soxna léeg-léeg ca tàmbali ba ibtidaan def ko te waruñu ko woon a def wala war nañ koo def waaye nañu ko defee ca biir def ga ca lañu wàcce yoon te boole ay soxna moom borom bi da cee sart ak maandu wa in xiftum allah taadilu fa waaxida fa waaxida loolu leer nañ ñi la su ngeen ragalee ne du ngeen mën a maandu yem leen ci benn yem leen ci benn bu luñ ko def ay xewet boo xam ne am aas boo xam ne ku ci yegg dangaa war a am ñaari soxna wala da ngaa war a am ñetti soxna noonu lañ koy jàppee diw moom ñaareel ba tey wala ñetteel ba tey gaa moroomam yépp ñaareel ne nekkul ci ak moroom wala ab aas booy egg waaye sa digganteeg sa boroom la allah taadilu la su fekkee ragal ngeen ne du ngeen mën a maandu yem leen ci benn waaxida aw maa malakat aymanukum dalika kon loolu ñàkk maandu googu dana waral ñàkk a déggoog ñàkk a rafetug nekkiinug soxna yi fekk na ci kóor gi la bàyyi ko ci ñàkk a léegi-léegi dana juddoo ci anaaniyatu zawjaat maanaam jigéen ñi bëgg guñ bëgg seen bopp ba jàpp ne lii waruñu ko bokk ak kenn anaaniya maanaam dañoo nekk ñu égoïste ñoo xam ne seen bopp dong lañ gis loolu itam dana tax seen diggante kañu bokkal boroom kër di am ay ñagas-ñagas di am ay jafe-jafe yooyu yëpp dañuy romb rek ci di tudd jàngoro yi ak yi koy sabab incha allah bu ñu eggee nag ci biir yiñ jàpp ne moo koy faj dana gën a leer bu baax am na ci yoo xam ne muskilaat la baynal awlaad wal waalidayn diggante doom yi ak way jur yi ñaari way jur yëpp wala kenn ci way jur yi foofu yi tam ay muskilaat ay ay jafe-jafe dana fay am ci biir famille bi yoo xam ne diggante doom yi la ak way jur yi ba ca gën a fes mooy uquuqul awlaat mooy doom yi ñàkk gu ñu ñàkk a topp seeni wayjur kooku alquran tudd na ko walladi qaala li walidayhi uffin lakuma koo xam ne day wax ay wayjuram ne leen mbas ma leen wala merde bépp baat boo xam ne day tekki ne da leen a jéppi fa njéppi tayam uffin uffin mooy koo xam ne soof na la lool yaakaaratu ci benn njariñ dangaa jàpp ne lor rek la feese ki jëm ci yow lor rek la feese kon ku mel noonu dana am ki egg foofu boobaa digganteem ak ay waajuram jafe-jafe dana fa nekk dana nekk itam ci waajur yi xëy na ci xam rek la ko teg waaye tegatu ko ci tënk yi nga xam ne mooy diine doom nga góorgóorlu ci diine moom moom xay na ci leneen la bëgg a nekk mu bëgg a doom jooju ca lam nekk moom loolu itam mën na indi eh, ñagas ñagas seen diggante foofu borom bi moo de wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi amul fala tutihuma foofa taa duutu amati buñ la bëggee dugal ci loo xam ne amuloo ci benn xam-xam te loola danga ci ciy bokkaaleeg sa borom bu leen topp saa bu leen toppul nag ñoom itam dañuy jàpp ne seeni àq kon taxawatoo ci loola itam bu boobaa dana andi euh, jafe-jafe yooyu kon mën naa sababoo ci doom yi mën naa sababoo ci euh, wayjur yi bu dee ca doom ya la koy sabab mooy ñàkk gu ñu leen ñàkk yar yar bu rafet bu yarub lislaam fañ waroon a jaar ak ñoom ba ñu juddoo ba nekk ay mukallaf wala sax buñ ko nekkagut fañ waroon a jaar ak ñoom ci lislaam la mu santaane ci ab yar loola la ñu defut loola mooy jur doom ya am fu ñuy toll ñu xam àq yi way jur war a am ci ñoom ba duñ ko taxawee dana juddoo itam ci ñàkk a taxaw way jur yi ci àqi doom yi ndax kenn ku ci ne dafa am ay àq sa digganteeg sa moroom su ca way jur ya taxawul moom itam dana mujj tax doom yi cër bañ ko waroon a jox duñ ko ko ci loola boobaa dana indi ay jafe-jafe seen diggante kon daal jafe-jafe famille bi muy muskilaat yi mën nga koo tënk ci ñett yi nekk diggante ñaari way dencante yi ak yi nekk ci diggante jigéen yi ci seen biir muy ko fekkee ay jigéen dañoo daje fi barab bokk boroom kër ak jafe-jafe yoo xam ne itam day nekk diggante doom yi ak way jur yi euh, li nga xam ne nag mooy sabab bu mag bi ëmb yooyu yépp ci biir lislaam nit ñi di ko dund muy jafe-jafe yu bari ñàkk gu ñuy ñàkk jàng bunt boobu ñàkk guñ ko ñàkk boole ci ni ñuy xamloo diine jàpp ne lii ak jaamu yàlla la santaane suñu boroom la tabaraka wa taala ay aaya ak i ahadis ni ñuy xamloo laab xamloo ko julli xamloo ko koor xamloo ko asaka noonu lañu waroon a xamloo itam bunt boobu nga xam ne moo aju ci wàllu njaboot ñu ko war a jàng ba xam ko waaye ñàkk bu ñu koy ñàkka jàng nag di ko doxal ci lu gën a bari ci aada loolu bari na lool même ñoo xam ne sax ñi ngi góorgóorlu ci diine waaye ci bunt boobu moom defuñ ci tafaqu maanaa fañu ne na muy doxee rek ca lañ koy doxale su ko defee nag mooy tax jafe-jafe day bari lool moo tax bala ñuy wax lislaam yan saafara la am dañuy wax lislaam lim jàngale lislaam lim jàngale buñ ko dundee rëq-rëq sax du am dañuy wax lislaam li mu jàngale ci loolu àq yi nga xam ne dox na diggante waa njaboot gi kenn ku nekk sa digganteeg sa moroom àq yi dox sa digganteeg moom soo ko taxawee rek rëq yi ñu wax sànq du feeñ walla bu feeñee itam ci kaw rek lay nekk lu yomba jubbanti lay doon àq yooyu la ci jiitu mooy xuququl waalidayni aqi way jur comme ñaari way jur ñoom ñooy taxawal famille ci la njaboot gi soqi ko kon seeni aq itam moo jiitu seen aq yooyu suñu borom tabaraka wa taala jox na ko dayo bu kawe bari na ci alxuraan fu mu koy lënkale ak àqam moom borom bi tabaraka wa taala ci jaamu giñ ko war a jaamu duñ ko bokkaaleeg dara ci aaya yu bari lam cay daldi sësal mooy aqi way jur bokk na ca wa id axasna mithaqa bani israila laa taabuduuna illa allah wa bilwalidaini ihsaana ci suratul baqara mu ne jëloon naa kóllëre ci banu israil digal leen ne leen laa taabuduuna illa allah bu leen jaamu kudul yàlla waaye nag digal naa leen ci ñaari way jur ak rafetal dala wax ne waabudullaha wala tusriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa xada rabbuka an illa iya wa bil walidayni ihsana wa wassayna al bi walidayhi xusna fee ihsana kon aaya bari ñëw nañ di leeral aqi way jur yooyu wane na dañoo war a rafetal lépp loo xam ne rafetal ëmb ne ko rek dañ koo war a def seen digganteeg seeni doom ba àq jooju sax egg ci ñu koy jiital ci jihaad bu fekkente ne jihaad ba nekkul fardu ayn nit ki bëgg a coobarew rek jihaad kooku taxawu ay wayjuram moo jiitu ci moom jihaad boobu abdullah ibnu amr ibnul aas radiallahu anhuma mi ngi nettali ne am na waa ju ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fastazanahu fi l jihaad tàggu ko ci ne daa bëgg a jihaad mu ne ko axayun waalidaak moo ndax say wayjur ñi ngi dund mu ne naam mu ne ko fa fiihima fa jaahid mu ne ko kon nag demal nga jihaad ci ñoom ñu ne nag loolu su fekkee jihaad ba nekkul fardu ayn la waaye sa wax dañ ne même bu jihaad ba nekkee fardu ayn te sànku teg way jur ya di sababoo ci mu demee jihaad yi bàyyi leen ñu sànku mën nañoo alku wala lu ñaaw mën na leen dal bu boobaa itam moom dafay war a nekk ci way juram yooyu taxawu leen mooy gën a ëpp solo ci moom jihaad boobu kon doom yi dañoo war a xam aqi way jur doonte sax bokku leen fas-fas te mooy la borom bi wax ci suratu luqman wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma waaye lam ca teg mooy wa saaxibhuma fi dunya maarufa maaruf même doonte bokku leen pas-pas na ngaa dëgër nag buñ la dugal ca pas-pas ba ñu nekk waaye nag tekkiwul ne da nga leen di baax wa saaxib xumaa la wax àndal ak ñoom ci àdduna mbirum àdduna rek na ngeen di séq maaruufan waaye nag ci njekk ak na mu jaadoo ak na ko diine nangoo loolu ngay séq ak moom nga gis ne kon seeni aq moom du rot benn yoon aqi way jur moom du rot benn yoon lu dem bañ rotal ko ne way jur yu amatul àq ci doomam déedéet àq ji ihsaan boobu dana nekk matériel dana nekk moral ci matériel ci taxawu ko ci taxawu ko ci yi nga xam ne dana koy soxla ci lekkam ak naanam ak fajoom ak dëkkuwaayam ak yooyu bu ca néewee doole war nga ko caa taxawu yow mi nga xam ne yaay doom su fekkente ne man nga ko waaye am na ci loo xam ne moral la muy ci wàllu considéré ko jox ko cër nit ki mën na dem ba yore way juram ci këram mu mel ne surga rek dëgg la moo koy dundal moo ko kii waaye amatul benn baat ci kër gi ndax léegi mënatul ab surga rek la doon ci kër gi moo tax borom bi ne imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma xawlan karima waxfid lahuma jana janaaxa dulli min arrahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira gis nga imma yablughanna indaka alkibar su demee ba nekk mag su demee ba nekk moom ab coono la moo moom la ëpp le ci njariñ léegi njariñ lu teew moom bëri leetu ko ab coono la ëpp ëppale dañuy sonn ci moom mu ne ñoom ñaar ñëpp waa ñaari way jur yi wala kenn ci ñoom nee na bu leen jëppi mukk falaa taqul lahuma uffin bu ko wax mukk yow jullit wala tanharhuma bu leen gëdd bul wax ak ñoom wax joo xam ne dangay ngay yëkkati sa kàddu di wane ne da ngaa énervé da ngaa mer waaye waxul lahuma xawlan karima xam nga mën nga leen defar ci wàllu matériel ba dara manquéwul waaye ni ngay waxeeg ñoom ni ngay yëkkatee sa kàddu ci seen kaw ñu yëge ci ñoom ak xeebu ne ñoom kat daanaka ñoog surga yi nga yoon ci biir kër gi rek daanaka ñoom nga yemale boobaa àq ji mataloo ko bul ne matal naa sama àq wutal naa leen dëkkuwaay maa ngi leen di jox luñ lekk yóbbu naa leen màkka defal naa leen di jàpp ne matal nga déedéet waaye ci wàllu cër boobu nga leen war a jox mu yëg googu ci àq yi la bokk gis nga mu ne wax fit lahuma janaaxa dulli min arrahma na nga suufeel ci seen wet sa daraja daraja boo mën a am boo jëwee ci ñoom na ko suufeel jublu ci nag yërëm leen du jublu ci jaamu leen waaye yërëm leen la min rahma da nga leen a yërëm rek toog yi ngay toog ci suuf wala coono ba ngay daj ci ñoom tekkiwul ne da leen di jaamu wala da nga leen di taqdis waaye da nga leen a yërëm ak di def ci ñoom li la borom bi tabaraka wa taala digal waxul rabbi irhamhuma kama rabbayani saqira gis na loolu itam kon lu mat a jàng la ci doom yi ñu xam ak ci jur xam ne nu mu mën a demee rek borom bi tabaraka wa taala tànn doomu aadama yi ba jël kii jaaree la la ci moom moom itam am sas wu mu ko sasoon ci yow nii mu la sase ci moom noonu la ko sase woon ci yow bu dee yaay ja sasoon na ko ne ko fokk da nga ko nàmpal wal walidaatu yurdi'na awlaadahunna xawlayni kaamilayni waaw yaay ji ba mu juree nga soxlaa lekk te amoo dara loo lekk dafa engagé sa yaay forcé ko ne ko foog nga nàmpal ñaari at nag yu mat sëkk li man araada an yutima radaa daal di ñëw ne bàyyi ba wa alal mawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bil maaruf daal la mi ñu jural doom ji nag ngay baay bi yow itam lii yaay ji dunde ak li muy sol li muy aajowoo ba mën a toog nàmpal doom yi for force nga wuti ko jox ko xoola sas woowu ba bala ba ko yàlla sas ci way jur yow liir bu tuuti nga yow yaa ngi toog yàlla di la di la décréter ay loi yoo xam ne moo lay protéger waaw mënu yow yu mënoo daa yow waaw buñ la fa bàyyi woon dem nga daal di sànn lii yàlla gàll ko ci ñoom mu bokk ci seen diine buñ ko deful dañuy mooy yàlla buñ ko deful dañuy am bàkkaar dañuy mooy yàlla xoolal loolu te booba ñoom xamuñu looy doon nit nga rek ak nit dong nga doonagoo dara xamuñu jullit ngay doon wala looy doon xamuñu ko waaw teewul ñu taxawoo noonu ci yow kon nag yow itam soo demee ba yow itam ñu tegaat ay loi ci yow yu jëm ci ñoom wur ca waru ca wut benn exception wala ngay jéem ay ngànt nañu taxawoo woon ñoom nga war a taxawe moo tax ñu ne waxul rabbi rahamhuma kama rabbayani safira loolu kon nit ki da ko war a xam-xam ne ci pas-pasam la bokk ndigalul boroom bi la tabaraka wa taala du lum seq ak way jur wi rek su fekkente ne daal kontaan naa ci moom moom it danaa fexe mu kontaan ci man defal ko li mu bëgg waaye su fekkee kontaanuma ci moom may itam dama koy naqaral may itam ndax li mu bëggoon defalu ma ko déedéet mbir mi nekkul foofu ay contrat yu ngeen signé yoo xam ne ngay def li nga war a def may ma def li ma war a def déedéet jaamub yàlla nga ab jullit la kii la la lii la la yàlla gàll ci moom moo xam moom defoon na li mu war li mu waroon a def bu ko deful yàlla la ko séqal waaye yow bu mu nga def li nga war a def loolu su amee yaakaar naa ne taxawaay boobu ak rafetal boobu diggante way jur ak doom liñ ciy faral di gis ci ay jafe-jafe du am waaye nag way juru doom jay mën a xam lii nag day fekk woy jur wa defoon ca la ko war kooku bu ñu egsee ci ko gis defoon ca la ca war ci ko ak yar ko ci lislaam boobaa ci la koy mën a teg moom fi mu ko war a teg parce que ci lay xam ay àqam kon bariwaane way jur buy jàmbat doomam fekk na na doom ja résultat la boo xam ne moom la def ci moom ndax kenn ku ne la ji rek loola ngay mën góob waaye su fekkee nag doom ji doonte way jur wa defu ko ca sax waaye yàlla baaxe na ko mu góor góorgóorlu ci jàng lislaam parce que ñu baree baree bari niveau ba ñu egg ci jàng lislaam ak gindiku ci lislaam bu leer lu ci baree baree bari jaariwul ci way jur lu ci baree bare bari jaariwul ciy way jur yàlla leen defal tawfiq rek ñuy tës tësi ak di làmb ba yàlla dajale leen ak ñoo xam ne mën nañ leen a leeral seenu gindiku jaar ca waaye loola nag bu du tee nag lam ca jàng xam ko donte way jur wi jaarliwu ci du tee la ca way jur wa am na ko ko dëkk ko yët si bu ne way jur wi jàngalu ma lislaam kon li ma xam ci lislaam moom yoonam nekku ci ak yi ma yàlla digal ci moom ci lislaam du ma ko def ndax moom li war li ko waroon ci man defu ko ndax yàgg bu doon moom rek du ma xam lislaam bul wax bu mu wax loolu gannaaw xam na ko rek na dem def ko loolu nañ ci bàyyi xel bu baax suñ boroom wan nañu ci ibrahim alayhi salaam gis ngeen xam ngeen mook baayam bokkuñu pas-pas baayam dafay mbokkaale waaye gis nga ibrahim teggin yi mu doon wax ak baayam yaa abati inni qad jaani min al ilmi ma lam yatik fattabini ahdika siratan sawiya mu ne ko bàyyi am na lu ma dikkal ci xam-xam loo xam ne yow dikkalul néew ko bàyyi maa la wala bàyyi xamoo dara daf ne ko rek am na lu ma dikkal ci xam loo xam ne dikkalu la te lool kenn ku ne nangu nga ko ku ne moom nangu nga de kii loo ko raw raw raw mën naa am mu gis loo xam ne wala mu dégg loo xam ne wala mu liir loo xam ne yow liiroo ko xad jaani min al ilmi maa lam yatik loolu moom loolu moom ku nekk ko nangu taalibi bi ngay jàngal sax léeg-léeg mu dégg loo xam ne wala mu gis loo xam ne yow ci moom nga koy déggewaat tekkiwul ak kawe waxin wi wax nga ko waxe du waxinu istiala di ko jéem a kawe kon yaa abati euh, laa taabudi sheytaan inna sheytaana kaana lirrahmani asiya mu ne ko yow bàyyi bul jaamu seytaane ndax seytaane kat dafa mooy boroomam ku mooy boroomam nag yow bu ko topp yaa abat inni axaaf an yamassaka asaabun min arrahman fa takuna li seytaani waliya an yamassak boo xoolee ni mu teggi na le baat yi kalimaat yi sax daf koy tànn ba waxul an yusibaka mais an yamassaka almas ragal mo mbugal min arrahman ne mënoon ne min al jabbaar waaye min arrahman jël turu yàlla wi ëpp yéen ma ne mu utiliser ko rek ngir gën a dalal xelu baay bi ba ñu yóbbu fitam waaw ah, ki teggin wax ak baayam kon booy wax ak te baayam yéefar la waaye xoolal ni mu teggi na lay wax ak baat bi loolu ci li diine di jàngale ni nga nekk ak war a nekk ak waajur gis nga ba ko bàyyi ba ne wahjurni maliyan qaala salaamun alayk sa astaghfiru laka rabbi ba mu ne ko yow daal boo fi bàyyee sunu xërëm yi nuy jaamu nanguwu koo topp kon génnal kër gi tàggoo na noog yow néewu ko néewu ko ndokk kon ma dem waaye daf ne ko salaamun aleyk waaw ak mucc moom rek moo lay bàyyi koo ci man sama côté daal dara lu ñaaw moom doo ko ci gis te nag danaa la jéggu luli suñu borom danaa ñaanal suñu borom tabaraka wa taala ak njéggal ñaanal na ko njéggal waaye nag njéggal ga jëriñut ndax amul pas-pas bu kon àq yooyu àq wayjur yooyu kenn ku ne da ko war a jàng bu baax xam aay yi ci aju ak xadis yi ci aju ak nag jéem a sa bakkan nag ci dund ñaareelu àq ba mooy àqu azawju ala zawjati àqi jëkkër ci jabaram ba ci jiitu mooy jabar ji war nay topp jëkkëram ci loo xam ne dug mooy yàlla war na koy topp ci loo xam ne dug mooy yàlla lépp lu baax lu mu ko digal loo xam ne ak mooy yàlla nekku ca war na ko caa topp jël nañ ci abi xurayra radiallahu anhu qaal qiila ya li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ayu nisaai xayr ñu ne ko waaw kan ci jigéen ñi moo gën qaal allati tasurruhu ida nadar wa tutiicuhu ida amar wala tuxaalifuhu fi nafsiha wala maaliha bima yakrah mu ne ki gën ci jigéen ñi daal mooy koo xam ne soo ko xoolee bég maanaam nam war a def ci waajtaayu boppam ba tax mu mën a bégal góor gi mu nekkal ba man koo indi lu ñuy tudde al iffa ak xabdul basar ba mu mën a yemale bëtam ci moom parce que loolu jigéen da ko war a taxawe xam ne kii comme jigéen ji bari nañu waaye kii la ko ci yàlla booleel war naa taxawe taxawaay boo xam ne dana ko mën a téye ba mu mën a yamale bëtam ci moom kon tasurruhu ida nasar waaye nag ci fii xuduudi sharia te nag la sharia digle ñu ne day bëgg a def lu neex borom këram wala lu mu ko mën a attiré ba mën koo téye bay jàll nag loo xam ne sharia digle wu ko di yokk ay kawar wala muy xeesal wala muy col col goo xam ne euh, jullit waru koo sol waaye lu mu ciy def itam nag na nekk ci biir li sharia digle mu ne wa tutiuhu mu di ko topp su diglee waaye nag lam diglee bañ a nekk mooy yàlla mu ne du juuyoog moom ci boppam du juuyoog moom ci alalam ah du am wuute ci digganteem ak lum soxla ci moom wala lum soxla ci alalam loola duñ ca amub juuyoo nee na bu kooku mooy jigéen ji nga xam ne moo gën ci jigéen ñi ñaareel ba ci àqi góor gi ci kaw jigéen ji jigéen ji war naa sori lépp loo xam ne lum yëg ne luy lor boroom këram boobu la jël nañ ci abi umama radiallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaal salaatatun laa tujaawisu salaatuhum aazaanahum yonente bi sallallahu am na ñett ñoo xam ne day seenug julli du weesu seeni nopp maanaam yàlla du ko nangu al abdul abiq atta yarja wa mraatun baaqat wa zawjuha alayha saaqit wa imaamu xawmin wa hum lahu kaarihuun ku jiiti ko mu ne mooy ab jaam boo xam ne dafa daw ab sangam koo xam dañ ko moom mu daw di gàntu moomeel ga ba ba muy dellu ak jigéen joo xam ne mu ne dafa fanaan jëkkëram fanaane koo mere fanaane koo mere ak kuy jiite aw nit te fekk nit ñooñu ñëpp dañ ko bañ bëgguñu mu jiite leen mu bëgg a force rek leen jiite ñooñu la yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne seenug julli du weesu seen ndox wax Tirmisi naka noonu it war na ci jëkkër ji moom it mu sori lépp loo xam ne luy lor soxnaam la ndax it nag jigéen ñi ni ñu amee ay war-war yu leen war noon lañu amee ay droit nag wala hunna mislu llati alayhinna bil maaruf buñ jàpp ne jigéen moo surga la rek ay war-war rek a tegu ci kawam amul amuli droit déedéet lislaam ni mu ko joxe ay devoir la ko joxe ay droit ñetteel ba jigéen ji bokk na ci àq yi góor gi am ci moom mu taxawee sàmm kër gi taxaw kër gi ak njaboot gi taxaw kër gi parce que njaboot gi ci kër gi lañuy nekk boo seetee ci mala yi doon wax sax dangay ngay gis bu ñu demee ba nen ku góor ki ku jigéen ki di bóof ci nen yi kee dem wuti lum lekk bu ñëwee léeg lekk ku góor ki moom itam day bóof ci nen yi dañ koy ay ayloo kon laa laaju kër gi fokk dafa am ku ci war a nekk dafa am ku fi war a nekk waaye góor ga xëy dem jigéen nga xëy dem ñu bàyyi fa xale ya bàyyi leen koo xam ne responsabilité bi tegu ci ñoom moom teguwul ci moom moom xaalisam rek lay wut day liggéey moom ñii seen fu ñuy mujj ëllëg moom yoonam nekku ci amu ci responsabilité parce que ñii ñi ngay yore day war a fekk ngay xalaat ci seen avenir di sonn lool lépp loo xam ne lu nar a fausser avenir bi ñu bëgg ci ñoom la ngay daw loola waaye ki nga xam ne moom yoonam nekkul ci ñii balaa ëllëg sax moom mu jógee ngi kër dem liggéey feneen xamul ñii fu ñuy mujj kooku bu fekkee ñoom nga ko bàyyeel loolu taxawaay ba du mat kon jigéen dafa bokk ci àq yi góor am ci moom nekk ci kër gi bokk na ci problème yu bari yi juddu léegi ni ñu matérialiser adduna bi léegi gëmloo ñëpp matière loo jigéen ñi ne leen yilif gi leen góor ñi yilif mooy ñàkk gi ngeen ñàkk man rek mais bu ngeen amee comme ñëpp kenn du leen yilif waaw kon da ngeen a war a wuti comme ñëpp ni ñuy wute ci ñu bari loolu lañ gëm fi nekk jàpp nañ ne toogaloo leen ci kër di leen yilif li nga leen di mënal rek a tax waaye bis bu ñu mënoon a mënal seen bopp kenn dutu leen yilife noonu te duñ tooganati kenn ci kër gi loolu nag bu boobaa li ñu waroon a taxawal ci njaboot day daal di rëkk moo tax ci xadis boobu yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wax kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatihi ba egsi ci ne almaratu raiyatun fi bayti zawjiha ci riwaayatu buxaari am na riwaaya boo xam dafa ne wal maratu ala ahli bayti zawjiha wa ala ahli bayti zawjiha wa waladi da ca teg sax wa waladi jigéen ab sàmm la ci waa kër ahl ahlu bayti zawjiha kon ku ne ca kër ga rek ak doom ya jigéen da caa war a nekk ab sàmmul parce que loolu dañ koo war a taxaw dañ koo war a seere ba tax na la jigéen jee taxawee ci biir kër ga ci ab coono bu fekkee jéggiwul dayoo ba nekk loo xam ne mënu ko loolu na xam ne tuyaaba ak jaamu yàlla la ci moom xoolal Fatima radiyallahu anha soxna yonente bi alayhi salaatu wasalaam Ali ibn radiyallahu anhu bi Fatima génnee àdduna am na ku mu ci doon waxtaanal ne ko nag kaay ba waxtaanal la ci mbirum Fatima di ko wax ni mu doon daj ci biir kër gi ne ko daf daan root ba loxoom yi rocc ko daf daan dëbba dëbba dëbbu ba loxoom yi fut daf daan bale bale ba yéreem yépp fundooñ nee na benn bis moom Ali mu yërëm ko fekk ay am ay jaam yu ñëw ñu jële leen cib xare mu ne yoon mu ne Fatima demal wax sa papa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu jox la ci ku lay jàppale Fatima dem wax ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mel ni ko yonente bi wax ittaqillaha ya Fatima la ko wax wa addi faridata rabbik wa amali amala ahlik wa ida agasti madjaik fa sabbixi salaatan wa salaasin waxmadi salaasan wa salaasin wa kabbiri arbaan wa salaasin fa tilka mia fa hiya xayrun laka min qaadi qaalat raditu an illahi wa an rasuli bis boobu buxaari yoog muslim gépp ñëpp ñëpp génn nañ ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu demee di ko wax ne daa bëgg mu jox ko ku koy liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko ragalal yàlla te ngay def faratay sa boroom ji mu la digal jaamu yàlla yi de ko def te ngay liggéey nag sa liggéeyub waa kër sa liggéeyub kër de ko liggéey di liggéey sa liggéeyub kër ne ko soo dematee bay tëdd na nga wax subhaanallah fanweer yoon ak ñett na nga wax alhamdulillah fanweeri yoon ak ñett na nga wax allahu akbar fanweeri yoon ak ñeent ne ko loolu téeméer la ne ko loolu moo gën ci yow am mbindaat mu lay liggéeyal parce kon Fatima doomu yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon jigéen ji bu mu jàpp ne liggéey bi muy liggéey ci kër gi dañ koo def baa doola wala dañ koo defub jaam wala dañ ko defub surga dëgg la nag su ko boroom këram manee lu mu ko ci mën a waye falal na ko def bu mënee wutal ku koy jàppale lu mu ca mën na ko def waaye itam nag boobu mu jàpp ne moom warul a def dara warul a def dara parce que dañuy topp dimbal googu ba léegi dara du duñu ko def duñu togg duñu fóot duñu bale duñu def dara waaw loolu sax moo leen may nag jotug witt boobu ñu toog ñu ne kon ñoom comme dañoo toog yi defu ma dara da ngay gis ko ne man comme defu ma dara naa dem fii jaayaatu fa defu ma dara amoon nga loo def yaa ko bañ a def waaw dañu ko ne man damaa toog rek defu ma dara waaw te dara defi mais comme wut nañ koy def dara yow nga jàpp ne defoo dara kon léegi war ngaa defi dara ci biti war ngaa defi dara ci biti sa saa yoo génnee na commencé am yu manqué ci biir kër gi parce que kër gi entreprise la ñu ngi entreprise boo xam ne euh, personnel bi xëy si wuñ ah wala bi xëy si wuñ nekku fi da xam ne benn entreprise ëpp ko xëy ma mu ëpp yëpp xëy ma sax. parce que ñay dem ci entreprise yooyu di fa liggéey ci entreprise su kër boobu lañ leen formé bañ mën a jariñ ca entreprise ya dem te entreprise bu duñ bëgg mukk mu ñàkk directeur benn yoon toujours bu bu absenté rek ñu nomee keneen wala bu demee ab soye baa ngi fi il faut kilifaa ngi fi waaw kër gi nag nu muy demee moom léegi kër gi kenn séeriwu ko kenn ku nekk kilifa nekku fi ñi fi nekk duñu responsable ci dara loolu nañ ci bàyyi xel bu baax loolu àq la boo xam ne bu ñu ko neenalee mooy indi ay masaakil léeg-léeg mooy indi day mujj góor gi xolam tàng xam nga ñëw ci kër gi fekk yépp jaxasoo fekkoo fi kenn loolu sa xol day mujj tàng day mujj tàng kooku day mujj cofeel ga nga amoon ci moom day commencé di wàññiku su ko defee jàmm ja nekkoon ca diggante ba commencé di dem ndax borom bi dana woon li taskunu ilayha li taskunu ilayha waaw ki nga xam ne ngaa waroon a dal ci moom nag ñëw fekkoo ko fa moo tax borom bi ne woon na fii buyutikunna waqarna sax leen toog leen ci seen biir kër yi waa kër yonente bi sallallahu la ko waxoon te waaye ñoom ji ñooy première ñooy royukaay ci lépp waqarna fii buyutikunna toog leen dëgg la néewuñu du génn dana doxi ay soxlaam yi nga xam ne mënta ñàkk néew ñu itam bu mu liggéey waaye liggéey ba dafa war a nekk loo xam ne daruura la waaye nekkul rek aadatan noonu dafa war a nekk loo xam ne